waaw ah, fas gi day loo xam ne oh. ci sëriñ bi la jógee ci Cheikh Cyril Mokhtar te sëñ Cyril Mokhtar nag ku ne xam na ni cheikhul murabbi la te sëñ Cyril Mokhtar bu ñu koy wax dañuy wax cheikh dañuy wax suñ baara suñ baara nag naan def jamono yi nawet mbaa bu mbas amee mu bindu téere téere bi képp koo xool rek suñu borom mën na laa muccal ci mbas mi waaye fas gi nag day fas goo xam ne fasum néew kàttan la mm. moo xam da sëy di gaaw di yegg mm. mbaa sa awra di dellu waaw ah, waxtu woo ko takkee rek suñu borom dana la ci defal tawfeex dana defal dana la ci defal ngëneel day loo xam daal képp koo xam ne yàlla dogal na ne am nga ko na sant yàlla bu baax a baax a baax ndax li ci nekk ci ngëneel kenn mënuñ ko misaal day loo xam daal ak tawfeex la mbokk yi Cheikh Sidil Mokhtar moom baatin ba jaaxal na Kajoor lu mu wax boroomam mun a waaw Cheikh Sidil Mokhtar borom juróom-ñaari sooro li borom juróom-ñaari lu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba baatin ba zahir sa la ko sànne woon sëtam mbaa ngi nii toog di ñu faram-fàcceel fas gi sëriñ bi waaw fas gi de day loo xam ne ci Cheikh Sidil Muxtaar la jóge di fasum néew kattan ndax sëñ Sidil Muxtaar kenn ku ne xamoon ne cheikhul murabbi la waaye lii képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kattan waxtu woo ko takkee rek sunu borom dana tàqale ko moom génn naa ci Cheikh moom Lamine Baara oh. mboolem jafe mboolem tawatug néew kattan gu mu fekk ci rek waxtu ko takkee rek ndax gàllaaj gi day gàllaaj goo xam ne ne biirun baarun sasa saxit mu jib waxaaf janafa janafa min mufsidin xeeti baat yooyu day baati jat day gàllaaj goo xam ne boo ko takkee léegi rek na nga koy gis léegi képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kàttan rek waxtu woo ko takkee rek sunu borom dana la ci defal tawféex dana dana defal xéewal moo xam da ngay sëy di gaaw di yegg mbaa da ngay sëy fukki minute waxtu woo ko takkee rek mën ngaa sëy ñeen fukki minute ndax day loo xam ne ngëneel la goo xam ne kenn mënu koo misaal ndax jàngoro yi néew kàttankat day tawat joo xam ne jamono daa dem ba yegg ca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 Thank you.

te dégg nga faramare donc fa la ñu waay leen ko jërë ngeen jëf. jeex na wala. maanaam fi problème de. lii day day dem foog de. lii day dem foog. ah lii garaaw na. gars yi yuuxu nañu. bilaay la laay. ah. alors <laughs> alors suba bu soobee yàlla suñu équipe nationale dafay football. ñu ngi fubal ak suñuy dëkkandoo suñuy mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm ñu ñu bokkal nekk bàyyi muy waa Gàmbi. dëgg la Maria Sim. ñu ngi ñaari équipe bi jàmm waaye nag képp ki nga xamante ni yaa ngi si naan match bi dëkk Sénégal ku ne xam ne ni Sénégalais nga fa. du loolu dëgg la ah. dëgg la donc que le meilleur nga xam nga non ma ne gars bi di géwéle saa yi dafa naa gën saa yi saa yi da nga koy teg ci digg bi saa yi teg affaire bi ci digg bi waaw dafa naa gën saa yi eh, awa lii moom bu la neexee après ma yóbbu ko dafa naa gën yaa ngi ko man ak yow am nañ am nañ gàmmi ba taay nga ne gàmmi ama yaa mën a wóor que le maire gañ jëmee incha allah. mais maa ngi la comprendre gën a jege gën a yey. maa ne. non garaawul garaawul. ma ne yey. suba yàlla na Sénégal gañe ñu ñëw fii. ma ne ma ne. amiin amiin amiin ci loolu day yee bay dégg. où sont les rek suba incha allah dañuy am ndam jërëjëf. kan mooy dugal suba ci sénégalais yi kan kan mooy dugal ah en tout cas Pape Matar Sarr fort Sadio jinne la de. oui Sadio Mané yi Pape Mané bi. en plus c'est un nouveau dara toog réew mi dem rek jëliwaat coupe bi. ah ay sax Sadio Bollek Maram ngay fal ñun ay bokk rek dañuy fubal rek fubal mu ñu boole reyanteew ñu. da leen lekk da leen lekk da leen lekk. yow seytaane nga booy. yow la booy yow booy da nga jéggi firi bi. ah jërëjëf. ah jërëjëf jàmm ak démb yëpp. di koy may suñu jigéen mbay borom Paris doomu yaa ngi satu. ah, ah am nañu ma